waa rapport yi lëmbe ci dëkk bi tamit duñ ci wax. rapport yi soo ko gisee c'est-à-dire c'est des bombes à fragmentation. ak ah, rajo max rajo. man kay dama cee dégg ba dégg sama papa Diop si di laaj ñaata milliards la luubal. 23 milliards la. Moussa déglu leen jàmm la bon gars yi Like ma commencé nag maa leen fàttali bu baax ngeen like vidéo yi vidéo yi xam naa ngeen koo like mais da ngeen koy fàttali kon boog likeal vidéo bi yow may seetaan ba pare après nga di partagé yow mi nga xamante ni top maa topp saa yu ma dugalee vidéo da ngay bokk ñi koy njëkk a wala sax yow te abonné goo lan ngay xaar pour abonné kon boog abonné ci seen bi abonne-toi dëgg la boo leen seetaanee ba pare après ngeen daal di partagé déggoo li ma la wax ah. damay laal kër yi ah. partagez, commentez positivement. Merci. Chaque jour quand se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Gaï, vous l'avez dit, supporter au Barça. supporter Barça il ngir a le suuli dama le ñaan s'il vous plaît dans les commentaires vous commentaire ay rouge bleu bleu rouge ma fi merengue ma fi merengue supporter vous Barça catalan catalan yi ci vous là, di wax ne leen nag réunion bi tey fii la ñu mën ak yéen wax ne leen gis ngeen supporter Barça ni mu méttee am na wala amul waaw loolu dafa leer maanaam supporter Barça moo raw déception amoureuse boo leen bëggee dégg-dégg supporter Barça métti na <laughs> Barça temps yi ñu ngi ñuy jooyloo rek xoolal réew ji ci boppam day dàkk mais nag ku ne xam ne nag arbitre ñoom bëgguñ ñu pourquoi dañuy xeex at tout le temps, à tout le moment, à n'importe quelle heure. Nous l'on lañu mëna wax nak ñun lool lañu gis. Oh 1500. Don supporteru Barça ci bopam nat bobu ko ko yalla tek bo dé mën nga dem aljana quoi. Dafa metti. Ferme-moi. Mais nak luma don don supporteru Barça man mom mën na né supporter 100% la quoi. Parfois nak ñu dor équipe bi. Ma dem bay cialit. Deug la. Mais sama xel bu né yar ci papa boy dina dama ñëwaat jappat club bi bu mu deuguer sama ñaari loxo xamné nak ñoxu ba neexul. Wa wa. Mais supporter deug waru décourager. Pourquoi? Ndax té man zal gëm na né supporter papa boy dina ci boppam moo gën a métti supporter Barça te teewul na ay fansam teel lañ ko gën a topp li nga wax mooy dëgg moo taxit démb bi ñu dóoree ma nar a am ko ne ma daal daanati nañ Papa Boy Djiné de sama xel ñaaw na ci ah, papa xool ko naay Papa Boy Djiné na jokkel daan na ko jokkel daan na ko sa papa nag li ko dal metti na de ba tey nee na du bàyyi. jéem maa dimbali rek wax ma papa ñaata combat la am. man ma wax la papa ñaata combat la am. ma wax la ñaata victoire la si am. muy yéen. làmbaloo xam nga ne moskat yow mii laa war a laaj papa ñaata combat la am ndaxte ñun ñi bëgg nañ ko xam. papa onze combat la am trois victoire huit défaites. huit défaites nga wax de. huit défaites. nga ne. ci palmarès. manta ne. huit défaites kay nag bëri na. non. mais papa bi mu duggee cadre mariage ñaata victoire la si am. bi mu si ay cadre mariage ak léegi benn victoire la si am. ak tey jii tamit mu amaat défaite encore. mi ngi nii xoolal tey ni mu daanoo. daa xam ne mënu ko. waa lamb la papa boo jine mais nga xamante ni saa yu amee combat Sénégal yëpp faral ko te bu arbitre soufflé rek ñu ne daanaka nañ papa june nga foog ne lan mooy solution bi. moo waraloon ma ne papa <laughs> riaji ci boppam day dakk lan wutal ko ceg-ceg mu bay bëre waaw waaw est ce que est ce papa dina ko nangu dafe ku may bàyyi sax nga may bàyyi mun daal je suis peur daal déet waay papa kon yow pareegoo pour bàyyi papa booy jinne tuddatuma ci làmb kon noo tudd maaji maaji numéro 2 laa tudd léegi si làmb ndey gay dégg nga sa jëkkër ji maaji maaji 2 la tudd kon boog le premier défaite de maaji maaji 2 ñeenti ñeenti 2 fermement kii papa pareegul pour bàyyi de xanaa ñu ñaanal ko rek bu amate combat yàlla ko yàlla may ndam ya yaa rabbi amiin ok gars ba tay ma ngi len fatali Serigne Saliou Mbacke borom jurul ku yag sran sama vidéo ya nga gis ma leen koy présenter muy ku yalla dénk xam-xam lool ma sha allah kon bok Serigne Saliou Mbacke borom jurul mën nga joxat gars yi borom jurul gars yi mën a xam ndariñ li muy ndoxam siti hémorroïde ballottement bëri lëndëm bir bu metti tank yu xar estomac insomnie sinusite fatigue général diabète tension perte balance règle douloureuse limpisa sexuelle da koy dindi bam jeex tak tak seeram té mom bokay nan da ngay gis résultat te do ci jël lu bari digg kaasu atay digg kaasu atay nga ci jël mbokk gaay ñoo ko dégg non Serigne Saliou Mbacke borom jurul mo nek non garab gi nak ñu tudd borom njurul mi garab gu baaxa baax gu am am solo ma sha allah garab bi nak képp ko xamanteni ni mës nga ko jël digg nga ba wax njëriñal garab gi kon bok yow mi nga xamanteni ni yaa bëgg ci garab gi mo xam nga nek Dakar mën nga woote ci 77 180 19 yow mi nek Mbour mën nga woote ci 76 611 33 60 ngir nga am ci garab yow mi nek Touba aussi mën nga woote ci 78 578 40 nga mëna am ci garab gi aussi kon bo gaay képp ko xam dal bu nga ci garab gi ma nga bëgg safara saafara jangoro gaal nga contacter ci numéro téléphone yi ma lay defal ci suuf bo leen ko défé do leen ko réccu li nga wax moy dëgg tax na daal gars képp ko xam aussi bëgg mu seetal la defal la ay ñaan contacter ko ci wolu na ko ci ma sha allah wa sét mom wax dëgg yalla yalla may nañu ci ñun dañ lay wax lepp lo xam ne ak li nga xam yaang koy dund ni te xam nga ni li mom mi ngi lay arrivé ak li nga xam ñëwagul loolu na xëy na dund goo ko wax la li nga xam ne moo lay yàqal ba noppi wax la sarax ya li nga xam ne boo ko defee rek mu dañ macha allah kon boog ñoo ko dégg noonu Serigne Saliou Mbacke borom juróol kontaan nañ ci ni ngay saafara jafe-jafe askan wi dëgg du rombi nopp waaye coowal umi ak boos bi may dégg moom nu mu demee noonu moom dégg naa visa am génn na dafa war a dem mais dégg naa jëkkër ci ñeneen du dem moom fan ko teg ah père loolu yéeme na de. loolu nekk lu ko tiis loolu jaaxal ma loolu. mais père en tant que papa Oumy kon yow lan mooy si sa taxawaay. bon dinaa ci dugg. pourquoi. ndax man maay bàyyam. mais papa est que bi affaire bi amee ak léegi déggante nga fekk boos. bi affaire bi amee. ba ñëpp coow li bëri na. dama ko woo ba waaw. ne ko boos ndax man li may dégg nii jaaxal na ma lool de. ni mu demee nii. léegi moom lu mu la tontu. moom daal nee na ma ñoom ñaar ñoo waroon ànd. ah dégg lii. mais ñoo waroon ànd kay bosam génnu te yàlla dogal na ni bosu jabaram moo génn te jabaram ci boppam moo feebar mais kon est que loolu war na mën a poser problème. warul poser kon lan moo ko tere pour mu bàyyi jabar ji dem. sama jabar du ma ko bàyyi. yaa ngi dégg muy dem fenn. non loolu sax dafa logique mais nag tamit bos taxawal bu fekkee ne jàppale sa jabar ci boppam moo la taxoon jug nga am ay jéego yoo xamante ni yaa ngi ko doon dox bu demee ba yàlla sotti loolu lépp da nga war a mun a taxaw ne alhamdulilahi rabbil alamin mais nga doon ñaan yàlla ndimbal yàlla ñëw ak ndimbalam nga ne xale bi du dem waaw pour yéen am na noo leen di waxee day mel man boos maa tere sama jabar dem faj léegi yow boo ko terewul kan moo ko tere mais man sama soxna du nangu ci kaw suuf ma takku ko ci fratas yàlla sunaa Muhammad ñu naa mën naa dem ci Allemagne mën naa dem fii mën naa dem fa après yow noo jàngatee waxu boos yi mbir mi dafa dem ba commencé di nduru leneen mais naa ne du ko bàyyi mu dem de duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg léegi bu ko bàyyiwul mu dem ba visa bi jeex nag dinaa toogaat dinaa xalaataat tuuti ci boos ay mbiram waaw waaw ba pare mun naa dem ak moom fu sori kanamam nit dëgg rawatina nak mu nek góor warul xol li jëmele kanamam mom rek dafa wara xolal li jëmele kanam soxnam aussi kenn duma jaxase sama jabar manam mom dañu bëggante amna na yo xamne buñ ko defee mën nañu jaxase entre suñu digënté ñun ñaar déglu leen bu baax bos fi kenn jaxasewu la fi ak sa soxna da nga doon ñaan dara yalla yombalal lokk nga ne du dem ci loolu lañu waxtan mais pas jaxase la ak sa soxna déglu ma da nga may déglu bu baax ma wax la limay wax parce que xam nga Sénégal dañu gaaw ci yóbbu nit pourtant sénégalais ñoo la jappalé dé sénégalais lan lañ ci def a ah, jappuñ ci pour xaalis bi mat xaar bobu lu ñuy à côté la pourtant ñoo la jappalé dé soxlaatu nañu ko ñun ñoko soxlaatul ah boss yaa ngi waxati de insha allahu bu nexé suñu borom ci katanu borom ok dina dem faju ji dina ñëwaat ci jamm léegi da nga koy mujjé bay mu dem wala man boss dina xar sama tanku tubay waw ba ba mo mënal sama bop and ak sama soxna yobbu ko mu dem faju ji bos yéen père boss de neena day bay visa yu mu nil muy taba taba ba keroog muy mëna yobbu jabar ji mu faju ji boss amul ay moyen pour ko defal bos mii ma gis de ak ni mu waxee góomu mu bàyyi ko mu dem boos loolu moo ko dal moo tax luy jëmale jabaram kanam moom mu bañ ko ah doy na waar de lii de nag mooy di ñaan sa jabar pour nu fajo ji yàlla yombalal la ko nga ne noo lii daa yomb du demee noonu xaaral ma taawa taawa ba keroog moo koy mën a yóbbu ma yóbbul ko sama bopp action bi nii la demee léegi ñi ci a joxe seen xaalis nag ku ci ñu ngi lay remercier bu baax a baax baax kon da remercier kep dong nga ci man wa léegi xaalis bi nak ki limu bëgg def moy golo di bay babul di dundé ci yalla neexut a défendre de boss mii li nga xamné ne mom moom maa opté waaw waaw na baye xal bi tam comme ko day faji ji lolou de moy deug deug du rombi noonu waa rapport yi lembe ci dëkk bi tamit dañ ci wax rapport yi soo ko gisee c'est-à-dire c'est des bombes à fragmentation hein ak rajam rajam man ké dama ci dégg ba dégg ci sama papa Diop si di laaj ñaata milliards la loubal 23 milliards la ëpp ko tamit. du un milliard du deux milliards. kon pourquoi OFNAC dugal ci loxoom. parce que vingt trois milliards ah li ma dégg ñit ñi wax père waxuñ loolu de. <laughs> mbéy boo nit ñi wax leen neex. nga ne kenn waxagu ci lu ma convaincre. mbaa yëg nga ni OFNAC mi ngi sa kaw. man de bu mu gis woon ma dem. mu ni ci lu mu munti doon nag. déet man kay ci waxi OFNAC laa la wax nga may indil wax justice. convoqué dañ ma fi OFNAC. si lan lañ la convoqué woon. affaire ceeb bi fi amoon des ah ci corona ba. daf ma ci dara. coow ceeb boobu itam yaa ko yëkkati de coow ceeb bi nga junj nii léegi ba of nag woowoon la ci. waaw nga xam ni lépp lu jëmoon ci wàllu transport bi yow lañ ko jox. waaw ba tey maa ko jëlee sama bopp parce que dama doon gis ñoo xam ne ñu ko def te baaxul ci état. déet xanaa du Père mii laa fi waxoon boo gisee marché état da ngay mel ni sarle sapin mu ne boo ma ko waxaatee ma porté la plainte. waaw moom la. te tey man lu ma bokk rek Diop si la ñuy tudd dañu fàtte ñeneen ñu koy liggéey. Père Diop dinañ la tudd tuddati la. ndax boo déggee marché yaay raw sarle sapin. da ngay mel ni melax. bu dee marché pataas. mu jël lépp. wala marché mango. mu jël lépp. bu ceeb. mu jël lépp. ba pare nan la. waaw fu <laughs> teg leen ceeb bi ci yoon. li wóor mooy ku ma ci wax loo ma jëm ndax bu subaa naa la porte plainte. ah ah bon. fermement te yàgg nañ ko wax day jël marché état mu ne ma jël ko kenn nit mënul wane maa wax ah ya ko wax de loolu dafa yomb ñëpp d'accord nañ ne yaa ko wax ñi ko wax ñëpp nañ la wax fan laa ko waxee ak kañ laa ko wax kon da ngaa bëgg wax ni ko ok of nag mi gën a dossier yor xaalis réew mi noo ko dara xanaa wax samay xarit ñi ma mën a dimbale dimbale waa ñi ma mënta ma yow kay ki la doon dimbale actuellement nekkatul suñu président. dëgg la. te maa ngi ñaan képp ku lekk alalu réew mi nañ ko topp. te topp boobu. narul jur jàmm. lan moo narul jur jàmm topp gi ñuy topp ñu cop alalu réew mi. loolu moo nar a taal dëkk bi. Ah, Samba lekk xaalisu réew mi ba pare naan du jur jàmm. ak kan kay jur jàmm ah, xaaral rek. Mbappé. maa ngi ñaan képp ku lekk alal réew mi nañ ko publier ndax lu ñëpp bokk la ngir ñëpp mën ci jot. mën ngeen ko def ci suuf. nga ne ci sutura nee na danañ ko def ci sutura. OFNAC yooyu dañ ko war a teg sur la place publique. man de sax wax dëgg fa yàlla xaw ma sax lu tax kii di wax naan génne gi ñuy génne rapport bi moo nar a taalal réew mi. gis nga ñàkk bañ ko génne foofu la musiba bi nekk. li nga wax mooy dëgg. moom kay jam ji aussi bokk na ci ku ci lekkal Sénégal yi dërëm maanaam moo xam lu mënti toll. tànk fay dëgg la. maanaam daal ci gàttal ba li bëggee dëgg ni nga xamante ni ñoo lekk alal réew képp kuñ ci war a fayeku non seulement di nga ko fay ba mu jeex mais nga dem kaso nga dem tëdd fa action bi nii la demee man de lii laa wax ci lii laa d'accord mbaa yéen tamit loolu ngeen wax ah, man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye bu ñu jox maam mu ñaan ñu tasaaroo ba beneen yoon amiin